président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñibbisi na ci voyage bi mu defee woon fële ca Mauritanie voyage fast track am foofu noonu donc image yi ngeen di gis monsieur le premier ministre moo dem ci aéroport bi teeru ji monsieur le président de la république donc Sonko dafa war a toogee ne dafa war a bàyyi Diomaye fay mu gouverner bu mu dugg ci wetam na ko sori ah non non di xaar Sonko ngi nii <laughs> alors président de la république xam ngeen dafa demoon Mauritanie ñëwoon naa defal leen si vidéo wax leen bu demee lan la ñuy waxtaanee thématique yi et tout président bu mu demee euh, naataango boobu jiite Mauritanie euh, recevoir na ko avec les honneurs voilà teew nañ ko teral nañ ko. voilà rafetoon na lool nit ñi tamit apparemment bëgg nañ lool suñu président la république bi euh, teexu dañ ko ñoom it tamit génn la def leen wenn coucou ànd na tamit ak ñi nga xamante ne ñooy délégation ministre et conseiller wam donc bu ñu demee toog war a waxtaan euh, bu ngeen xoolee photo bii nii dama leen di wax ñan la euh, de la gauche vers la droite donc ki njëkk ki mooy monsieur Papa Samba Ba di directeur des hydrocarbures hydrocarbures bu ngeen ko déggee mooy lépp luy pétrole gaz naturel Euh, këriñ voilà yooyu noonu la euh, ki ci topp di monsieur Birame Diagne di euh, Sénégal foofu ci réew Mauritanie ki ci topp di Sonar Ngom di conseiller diplomatique du président de la République ki ci topp di docteur Fatou Diouf docteur Fatou Diouf na moom mooy première jigéen bi nga xamante ne ne moom la ñu nommé ci boppu ministère des pêche donc moom mooy ministre des pêche des infrastructures maritimes et portuaires voilà docteur Fatou Diouf euh, keneen ki mooy monsieur El Malick Ndiaye mooy ministre des infrastructures des transports terrestres et aériens maanaam euh, lépp li nga xamante ne ne mooy euh, tali yi transport yi transport bi ci jaww bi transport bi ci terre bi xam ni waxee terre tal hmm, olofal bi dëgg yàlla suuru naa ko wante compliqué na de ki mujj nii nag moom mooy ministre Yassine Fall donc moom mooy ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères moom mooy deuxième personnalité de l'État donc président de la République bu fi nekkul premier ministre mooy chef président de la République bu fi nekkul premier ministre nekku fi moom madame Yassine Fall moom mooy chef donc hiérarchie wu gouvernement bi noonu lañ ko tëggee benn précision la bu mu leen bëggoon defal. bu ñu defee seen waxtaan bi ba pare président Mauritanie bi euh, invité na leen ñu añ et toog waxtaan après mu gunge leen ñu dem ay aéroport bu ñibbisi bi ñu ñibbisee na monsieur le premier ministre moo taxaw nii xala regard bi ndeysaan moo ko teeru après bu mu ñëwee. Euh, na tamit ay autorités civiles et militaires yu taxawoon pour xaar ki nga xam ne moo di monsieur le président de la république dina protocole bi la mu ngi fii depuis toujours am na ñoo xamante ne peut-être neexu leen ñu ngi wax ne ne mais c'est peu trop buy dem ñu koy gunge buy ñibbisi ñu koy gunge bon euh, yëfi na du ñëw rek ne eh acca tout à la poubelle ça va se faire progressivement voilà donc euh, lii mooy information yi maa ngi ñëw nag defal leen journal patriotique du Sénégal donc bii moom vidéo spéciale laa ko bëggoon def président dem na Mauritanie ñibbisi na samedi incha allah mu dem fi nga xamante ne ne moo di